salaamaaleykum mbokku internet di mercredi 1er décembre 2021 ñu ñëw ak yéen ci revue de presse bi dooree ko record yéenekaay mu nga fësal derbi bi war a am tey ji ci diggante Everton ak Liverpool bu Sadio maane loolee nag ñu ngi koy xaar 20h15 8 bu tegalee fukki minute ak juróom la match boobee di door ñoom ñaari club yi nag seen stade di yee boo taxawee ci benn bi da ngay gis benn bi kon nag suri soriwante ñu dara match boobee dina neex lool waaye laataa loolee kii di Watford moom mooy dalal Chelsea bu Edouard Mendy kii di Ismaïla Sarr nag du bokk ca match boobee dafa am gaañu gaañu waaye kii di Samuel Eto'o mu ngi ci journal bii di record yéenekaay laaj nañ ko nag ci Ballon door bi nga xamante ni Messi ak Cristiano Ronaldo tegle nañ ko di ko jël mu ne ñaar ñoo ñooñee bu ñu fi jógee ki ma gis ne war na koo mën a tegle du kenn ku dul Kylian Mbappé. ñu jógee Sénégal wutali France fekk fa l'équipe l'équipe ma nga fësal waa Paris ak waa Nice tey jii lañ war a jongante vingt heures. la course au soleil ñoom ñaar nag ña ngay daw jëmale jant ba li ko waral nag du lenn du dul kii di Nice ku am ambition la ku am ay bëgg-bëgg la te Paris moo jël pee Nice moo jël troisième match boobee tey dina neex lool waaye journal bi nee na Messi nag ña ngi koy xaar mu indiwaale lii di ballon door bi mu jël bërki démb kii di Donnarumma it trophée boobee mu jël di meilleur gardien ña ngi koy xaar mu indi ko foofee ca stade ñu jugee France wutali Espagne wàcc ca capitale ba di Madrid fekk fa AS yéenekaay le leader face à ñii di waa Real de Madrid ñooy leader maanaam ñooy jël pee ci Liga Santander bi tey jii nag mur la ñuy jàkkaarlool muy waa Athletic Bilbao loolee nag mi ngi am vingt heures match boobee nag ñu ngi cay xaar waa Real de Madrid bi nga xam ne meilleur attaque la ñu ca Liga Santander ba ndax dugal nañ 34 bi waaye ñii di waa Athletic Bilbao ñoom kat bokk nañu ci meilleur défense yi ndax 10 bi képp la ñu encaissé kon match boobee ñu ngi koy xaar vingt heures la waaye kii di moom mii di tàggat ñii di waa Athletic Bilbao Lo wax na nee na ballon door bi ñu joxe bërki démb su fekkoon man maa koy joxe dama koy yëkkati jox ko Karim Moustapha Benzema ndax Benzema li muy liggéey ci football bi rafet na ñu jugee aas yéenekaay jël Marca yéenekaay Vinicius la fësal ca xët wu njëkk wa moom nag la Real de Madrid yaakaar ci juróom-ñaari fan wala juróom benni fan yuy ñu jëm ndax Real de Madrid ñetti match yu ama am solo la am ci semaine bii ñu nekk ñoom nag di waa Real de Madrid tey jii lañ koy door seen diggante ak Athletic Bilbao loolee vingt la gone gi nag ñu ngi koy xaar bu baax samedi Liga Santander Real Sociedad lañ war a am gone gi ñu ngi koy xaar ca match boobee waaye nag talaata Ligue des champions la Inter la ñuy dalal match boobee it am na solo lool ci Real de Madrid coach su Real de Madrid bii di Ancelotti nag ma ngay socc ay bëñam di reetaan ndax ñaari gone yi jotaat na leen muy Eden Hazard ak kii di Rodrigo Goes dañoo blessé woon waaye ñëwaat nañu ca groupe Real de Madrid ba kii di Marcelinho may tàggat ba Bilbao nag ma ngay wax nee na kaani xeen gi nag tey jii du kenn ku dul Vinicius Junior ndax gone gi daa ñor xomm lu mu tànte rek dina jàll kon nag nañ ko bàyyi xel bu baax a baax ñu jugee Madrid wutali Barcelone fekk fa Esport waa Barcelone nag am nañu quarante millions d'euros ngir def ko ci Ferran Torres loolee nag waxtaan ba ubbeeku na ña ngay waxtaan bu baax waaye Barcelone nee na waa mën sa Manchester yi loolee nag même su ngeen ko nangoo mu aw ma xaalis boo xam ne dama koy génne léegi joxe ko par xaaj laa koy fay weer wii ma joxe lii weer wee ma joxe lee ba mu mat waaye seen coach su bii di Guardiola ma ngay wax nee na ñun waa mën Manchester City sunu joueurs yi leblewuñu ci kenn mayewuñu ci kenn dañuy jaay ku am sa xaalis rek ñëwal ñu jaay la ko. waa Barça nag ña ngay wër ba léegi ku dolli seen dooley attaque boobee ñaari gone yi nekk ci Chelsea nag ubbi nañu bunt yi ngir waxtaan ñoo ngi waxtaan ak waa Chelsea buñ ci mënee am kenn ci ñaar ñii may waajal lim rek baax na kii di Hakim Ziyech ñaar ñooñee bëgg nañu ca kenn kii di Olmo nag mbiram yi dafa dëgër ka ci yënguwul dara ndax waxtaan ba avancé wul dara kii di Ousmane Dembélé nag ma ngay dalal xelu waa Barcelone leen même bu ma yokkul sama contrat na seen xel dal euh, janvier bii ñu jëm moom du ci dem su ma ko yokkul damay bàyyi ba suñu kay ma door a dem ñu jugee sport jël Mundo Deportivo loolee Ousmane Dembélé di jéem a dalal lay xelu waa Barcelone neexul waa Barcelone ba tax na jox nañ ko ultimatum maanaam jox nañ ko àpp ne ko nag yow mii di Ousmane léttuñu wala nga firiñu fukki fan ak juróom lañ la may nga wax ñu li ñu def ci contrat bi ndax bëgg nga ko wala déet nga signé ko wax ñu ca teel moo gën layam-layam ji nga nekkee ak ñun dañoo bëgg nga létt ñu wala nga firi ñu. ñu jugee Espagne wutali Angleterre fekk fa Daily Express Sport ma nga fësal Jack ca xët wu njëkk wa waaye ka koy coach di Pep la mooy wax ak moom nee na ko soxla nañ la tey jii de Manchester City mooy fekki Aston Villa 19h30 la match boobee waaye kii di Jack Grealish jaloore ji mu defoon. ci saison bii ñu génn ba tax ñii di waa Manchester City dem ñuqi xaalis bu bari lu ci tolloog 100 million de livres sterling boo ko xaymaa ci euro mu toll ci cent dix huit millions d' euros loolee nag du xaalis bu ndaw ba tax na ñoom ñii kat soxla nañ ko moom mii di Jack si nag doxagul ca Manchester City ndax ba mu fa ñëwee ak léegi ñaari bii képp la dugal la ñuy xaar ci moom nag tey jii soxla nañ ko lool muy mu doxal comme ni mu ko doon defee. ñu jógee Angleterre wutali Italie wàcc Rome fekk fa Corriere dello Sport Paulo Dybala yeena waa Juve ñoom ñii kat démb Salernitana la ñu doon jonganteel dóor ko ñaari bal ci dara Paulo Dybala dugal. na ca match boobee ak kii di Alvaro Morata ndam loolee nag am na solo lool ci waa Juve waaye taxul ba léegi ñu ñëw ca kaw a kaw ndax kat ki jël quatrième ñoom ñii kat di Juve mi ngi leen rawee sept poñ kon waa Juve ña nga ci guute ba léegi ñii di waa AC Milan nag ak ñii di waa Inter ak Naples bu Kalidou Koulibaly tey jii la ñuy football ñoom ñett ñooñee ñëpp match ba cay njëkk am nag mi ngi war a dox ci diggante Inter ak Spezia boobee 17 h demi lay commencé waaye nag ñii di waa Inter la ñu bëgg ca match boobee ndam képp la la bu dee kii di Spalletti ak ñii di waa Naples ñoom Sassuolo moo leen di dalal 19h45 la nañu def très attention ndax Sassuolo moo fekki woon AC milla ci match bu mujj bi dóor ko dóor yu miti bu dee waa AC Milan ñoom tey Genoa la ñuy fekki ñoom match boobee ñu ngi ko war a football 19 h cinq kon nag ñii di waa AC Milan mi nga xamante ni ñoo nekk ca deuxième place ba ñoom it soxla nañu ndam seen match bu mujj dañoo daan woon ñu finalement gis nañu ko de moom mii di Paulo Dybala nag fës na nag lool ca jongante bi doon am démb ci diggante Salernitana ak ñii di waa Juve loolee nag ndam loole am na solo lool ndax dal am na ca équipe ba ndax coow la bari woon na lool waaye yëf ya dalandeegum na kii di Elkan it mi ngi ci journal bii di Tuttosport moom mii di Elkan nag ci famille Agnelli Agnelli yi la bokk président wu Juve mi ngi tudd Andrea Agnelli ci famille boobee la bokk ma ngay wax nee na Juve nag mi ngi ci ay jafe waaye ñun loolee du tax ñu ne yàcc ne yasar ñu jéem lépp ngir yuufe jaloore ji mu nekkoon mu dellu siwaat ci ba ñu fàtte jafe-jafe yooyee ñu jógee Torino wutali Milan fekk fa Gazzetta dello Sport ma ngay wax ci ñaari club yooye nekk ca Milan muy AC Milan ak Inter nataal bu xoromu nag la def kii di Zlatan di daw Lautaro di ko jéem a jàpp ndax kat loolee am na solo ñoom ñaar ñii kii di AC Milan moo jël deuxième